mbokk mi yaa Seyda dafa waxoon naa présenté Oustaz Seydou Ly doy na présentation rek man leen ab jàngalekat la ab yàrkat la ñu sonn diine la yitteem yépp mooy lislaam képp koo xam ni islaam ñor na la moom saf nga képp koo xam ni yaa ngi gàntañ ñun si lislaam dina jéem a góorgóorlu wax ci li si donc loolu la ñu xam si moom te boobaak léegi ñu ngi waaj a yàgg bu ñu sañoon day dëkk ak moom bu ñu sañoon di yendoog moom ndax li sama benn doyen di wax yàlla na ko yàlla wéeral mu ne bu wéeroon fu ma ne mu nekk fa ndax xam ne ni tuyaab rek la koy jëlee waaye man moom la ñuy wax si suñu bopp bi yàlla na ko yàlla fekk ci làmmeñam ba lim ñu andil mu mën ñu koo jox yàlla bu am benn gàllankoor kon loolu saa yi dafa dara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu mbokk julit yi ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq di am mbégte bu rëy ak kontaan dajeeg yéen ci pàkk bi ci barab bi ci invitation boo xam ne sama ñaari mbokk yi nga xam ne bi ma leen xamee léegi ëpp na lu tolloog fanweeri at ak nangam ci liggéeyu yàlla bi ñoo ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala yal nañu yàlla barkeelal sunu daje di am kontante bu baax lu tax jàppoon nañ ne seen cité yi jigéen ñoo xam ne dañoo bëgg diine l'islam fanaan ci seen bopp amu fi nit ñi dañuy jàpp ne cité yi ay tubaab yu ñuul ñoo fa dëkk loolu lañ nit ñiy jàpp kon dinañu sant yàlla lu toll ne journée mondiale de la femme ngeen dajaloo delloo seen bopp ci seen borom loolu rëy na trop mbokk yi ndax tey bu ñu doon xool ci biir réew mi wala ci àddina bi tey bari na fu jigéen ñi daje waaye dafa nu lii te nag kaw suuf amuñu fi lu dul lii mbokk yi lii mooy li njëkk lii mooy li mujj soo ko nangoo soo ko bañooy lii mooy liy njëkk ci yow lii mooy liy mujj ci yow boo juddoo ñu ne ana imaam boo faatoo ñu ne ana imaam kon lii mooy li njëkk lii mooy li mujj ñu ngi fas yéene def waxtaan bi ci jigéen lan mooy taxawaayu jigéen ju baax ci société waaye bëgg a leeral rek mbirum jigéen ci àddina bi dafa am problème ndax jigéen dafa am ñett ñu ko tooñ tubaab yi dañoo tooñ jigéen ceddo yi tooñ jigéen nitu aada yi tooñ jigéen tubaab yi ban tooñ lañ leen tooñ mooy bokk na ci yàlla bind leen ñu indi leen benn journée mooy àddina bi yëpp benn journée ngeen ci am loolu tooñ la wala fi yàlla bind góor fa la bind jigéen ki bind góor moo bind jigéen lan moo tax kon góor ñi bëgg a def jigéen ñi ay poupée di leen tuddee benn journée te bokk ak ñoom àdduna bi loolu naxaate la waaye jigéen ñi ndeysaan xamuñu ne dañ leen di nax mu leen fawee at ba at bi del si ñu jënd leen ay tisi nuroo la leen dugal leen ci ay place indi leen ay verre yu mel ni yu rafet jox leen boisson ñu naan ñu jox leen bañee ñu ne leen journée mondiale def leen ngeen ñibbi ndeysaan ba déwénati ngeen ñëw loolu mooy naxaate bi ñu leen ak tooñ bi ñu leen tooñ bokk na ci tubaab bi tooñ bi ñu tooñ jigéen mooy futti gi ñu ko futti sànni ko ci mbedd mi ak ni ko yàlla fonkee benn borom xam-xam day wax ne def yaramu neen di warum réew fu mu yegg si ñu ne est-ce que ak rafet mu ne fas la jik fas rek moo dul sol yére du sol mbubu du sol tubéy du woddu fu mu yegg si ñu ne fas bee rafet wala kon bu ko ci nit toppandoo juum na nit moom mënta rafet sans yére moo tax jigéen bu ñu ko futtee ci kaw pojom ne dañ koy tànn miis ba mu dese la mu dese ñu ne ko da ngaa rafet du dëgg ndax yére mooy tax nit rafet ah ku daje woon ak imaam mu def yaramu neen fajar looy wax non boobu dafa dafa boobu dafa sori ku daje mbër yi ni ñuy mel mbër ni mu mel mbër deux centimètres nga ubbi sa kër dajeeg benn mbër xamoo ne mbër mi la nga xool ko ni mu mel looy la bu doon paa boo xam ci koñ bi loolu lay wax boo duggaatee dafa kon nit saa yi ñu ko futtee rek fooye nañ ko même bu dee góor moo tax mbëri dañ leen di fooye am na loo xam ne ay milliards sax jaru ko waxuma la ak million dignité personnalité diine doo gis mu nangu loolu mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génne na yahud yi Médine lu tax benn kaala jigéen bu nu tegg ci bopp bi ndaw si yuuxu daan ne woy muri nan ma ku la muri ñu ne yahud benn yahud moo ko muri yonte bi jox ndigal ne benn yahud bu mu fanaan ci Medina tey lu tax ñuy tooñ jullit di ko muri su yonent bi ñëwaatoon tey Sénégal mu gis jigéen ñëpp def yaramu neen di kiris karas mbokk yi est-ce que kiris karas rafet na ci góor kiris koros rafet na ci góor jigéen di ko def tubaab moo ko waral moo tax man la tubaab dañoo tooñ jigéen ba mooy tooñ bu njëkk bi génne ko futti ko def ko ci mbedd yi même panneau publicité yi verre bi bu ñu ko doon jaay ba mu jar photo jigéen bu def yaramu neen lañ ciy teg d'accord ngeen wala ñëw ma fi di wax di waxtaan pour ngeen noppi de mais wax ngeen di wax maa ngi yéen ñoo bokk waxtaan bi suñ doon jaay appareil bi dañ ciy tax photo jigéen def ko yaramu neen d'accord ngeen ku ubbi sa benn magasin bëgg njaay mi jar da ngay invité xale bu jigéen ne ko nag del dangal dégg nga pour gars yi ñëw nangu ngeen wala su ko defee gars yi fay jaar nga xam ne même buñ bëggul jënd gis nañ xale bi waaw soxna si bagage yi fekk bagage sax yi teewlu leen maa loolu tooñ la buñ tooñ jigéen jigéen kenn war ko def poupée kenn war ko def dàll sol simmi après boo soxlaa dee ñëw sol non kenn war ko def soccu saa yoo intéressé socc sa gémmiñ bu pare nga sànni non non jigéen dafa cher dafa fort beneen tooñ bi ñu tooñ jigéen mooy ceddo yi tooñ jigéen trop luñ ko tooñ mooy warul jàng warul xam dara dafa war a nekk rek ci ginnaaw góor lan lañ koy dee sëy bu ñu paree mu toilette ñoo toog ci wetu jeex na loolu tooñ la da ngay dégg Sénégal ñu ne njàngu jigéen du ci jëlee yaay kaay seet jarul muy sori même bu dee diine sax ñu ne mokkal na Faatiha fa la fekk naa ñu ne waa ñu ne doy na. am na lu mu jullee doy na du nekk imam di du takk sëy bi moo du ay na moo tax gis nga sa catastrophe tey quartier boo gis jigéen dee dañuy am problème ko wasang moo tax damay proposer Seyda après conférence bi incha allah ñu organiser ñetti école yi ahkaamul janaïs nu ñuy sangee néew oui boo xam ne dañu koy def ci bayal bi ñëpp ñëw am ko volontaire u tëdd ñu wane nan la ñuy sangee jigéen bu génnee àdduna ñëpp mën ko parce que mbokk yi dañuy dund te dañuy dee est-ce que du du gàcce man damay tukki damay dem fu nekk mais yenn saa yi ma dugg ci benn dëkk góor ñi ñooy sang jigéen ñi faatu parce que duñu am jigéen bu ko sang surtout biir Casamance da ngay dem foo xam ne imaam mi daf lay wax ne fii ku dee man mii maa koy sang te loolu dafa aram góor du sang jigéen suñ demee ba amuñu koo sang dañ koy tiimloo suul ko dañ koy tiimal suul ko kenn du ko sang jigéen kenn du ko futti góor du ko xanaa jëkkëram loolu de mën naa nekk jëkkër mën na sang jabar jabar mën na sang jëkkër su faatu su faatoo waaye keneen non même boo doon xalifa général amoo ci droit waxuma ak imam amoo ci droit waaye lu ko waral mooy jigéen ñi jànguñu xamuñu loolu nag ceddo yi ñoo ko def ñoo tooñ jigéen foofu moo tax ma ni jigéen dañ ko tooñ ñetti tooñ tubaab bi dañ ko tooñ mooy ñu doon wax sànq ceddo yi tooñ ko ñetteelu tooñ bi mooy nitu aada yi ñoo ko tooñ aussi wala aada ni ñu jàppe jigéen wala aada dañuy wax sax der du ci toog yi jigéen du toog ci den jógal subhanallah ay xanaa jigéen du nit ah bu gisee baax ñu ne ah yow da ngay lekkandoog ñun tey da ngay añandoog ñun ah lu tax du lekkandoog ñun diw yaa ngi di lekkandoog nit ñi maanaam yooyu dafa am yu bëri yu xew ci dëkk bi jigéen ñi dafa ne l'islam moo leen ko teg fekk islam sori na ak loolu nit ñi jàngul ñoo leen ko teg ak aada ak ceddo ak tubaab yi ñoo leen ko teg waaye du islam parce que l'islam bi mu ñëwee fi mu fekk jigéen dafa fekk jigéen ku am doom bu jigéen da ngay gas ba mu xóot muy dund nga gàddu jël peel yaa am ne la foo ko jëmee nga ni gisoo peel de mu dugg ci biir néeg buy yuuxu nga dem teg liir bi di gas muy wéqu ba mu xóot nga gën tëmbal ko ñu biir suul ñu bi Omar ibnul Xattaab day nettali lu doy waar nee na dama am benn doom bu jigéen di ko suuli mu ne ma dugg ci pax bi gas ba pax bi ma dugg kenn gisutuma sama sikki mi dàq suuf xale bi ne ma papa sa sikki mi dafa dàq suuf te moom laa dugal ci pax bi xool loolu nu mu grave noonu la jigéen meloon na foofu la islam fekk jigéen wa izal mawudatu suilat bi ay zambin qutilat yàlla nekk ëllëg yowmal qiyaam yéen ñi rey jigéen ñi naa leen laaj lan la jigéen ñi def lan la xale bi def ba nga rey ko egguñu sori woon nañ foofu sax bu kenn jabaram ëmbee mu am doom wa iza bushira ahaduhum bil unsa mu am doom waa ji ne tëll ne soxna si loom mu ne jigéen mu ne oo mais loolu del si naa daana loolu del si na de barki dee bu mbokk mi da doon wax ne gis naa waa joo xam ne jabaram dafa am doom bu jigéen mu ne wallahi duma ko ngénte duma ngénte jigéen duma ngénte ngénte la benn waaye ci topp di wax di mocc ba waa ji dem jënd xar jigéen wala loolu te loolu ci Sénégal la de waxuma sax ay arab beneen mooy sunu borom fekk jigéen ñu koy donn jëkkëram dee rek ñu ñëw di évaluer kër gi ñaata lay jar meuble yi oto bi ñaata doom la bàyyi ñu ne ndaw si ci la bokk te doon naa leen moom it foofu la leen yàlla fekk ah bu fekkee da ngeen xamul seen bopp yàlla daf fekk ñu leen di toroxal yàlla libéré leen dagg buum yi islam moom dong moo teral jigéen ki ne ki ne la futteekul ma xool ak ki ne la muural sa awra ñoom ñaar ku la bëgg yàlla da leen muurule tubaab bi ne non non non non non dafa tàng yow xanaa da nga dof muureekul xoolal pour ñu xool la xoolal ni nga mel xoolal sa lii xoolal sa lële ah so te léegi sax yemu fa war loolu nañ la yéen yi indil la ay yéen nga gis gars yi léegi dañuy kole kole dama seetaan benn film ci facebook bi billaahi benn montage waa ji ànd ak benn seet bu rafet ñu ngi lëng mu ni waa jaa ngi sol costume bu noir femme baa ngi def tout blanc ñëw ñu dugg ci biir néeg bi rek femme bi ne nii poche bi sànni waa ji taxaw di xool mu ne nii teg waa ji di xool mu ne nii teg waa ji mu ne nii rek waa ji daw lépp la femme bi monté lépp mais kooku ban jabar la ki nga takk xamoo ko xamoo ki kan la di parce que lépp la monté monté la kawar monté xef monté ay nga kii monté ay wee monté ay ween monté ay ans ah oui mu ñëw simmeeku di di di di tëdd di simmeeku yooyu di teg ah da ngay taxaw di xool man kan laa takkoon kii kan la loolu nag tricherie la loolu nag du diine loolu la la yàlla bañ loo yàlla dafa bëgg ni mu la binde ci aaya alquran bi mu la wax ne yaa ayyuhal insaan yàlla dafa jékki-jékki mu ne eh yow doomu aadama eh yow fàttekat bi al insaan la yàlla wooye foofu nit yaa ayyuhal insaan eh yow fàttekat bi waa yow maa garraka bi rabbikal karim lan moo la dal ba nga weddi sa borom lan moo la dal ba nga weddi sa borom allazi xalaqaka borom bi nga xam ne moo la bind kenn fekkewut bu jigéen ëmbee kan moo dégg kan moo dugg ci biir bi di dimbali yàlla ba muy bind nit ci biir yaayam man yàlla mu ne man dong maa la bind allazi xalaqaka fa adalaka man yàlla maa la yemale fi ay suuratin maasaa rakabak ci melokaan bi ma neex laa la bind léegi nga màgg nga màgg di ko dindi melokaan bi ma neex dangaa gàtt ki gàtt yàlla moo ko neex mu gàtt loola nattu la ki njool yàlla moo ko neex ki ñuul yàllaa ko neex ki am yaram yàlla ku nekk ni nga mel yàlla mu ne fi ay suuratin maasaa rakabaka ci melokaan bi ma neex man yàlla laa la bind léegi nag est-ce que am nga droit yàlla bind la ci melokaan bi ko neex yow nga changé ko fan yee da ngay romb panneau publicité yi waa ñuulaange ak waa xees pecc di concours gis ngeen ko non si xam nañ li may wax ku suivre actualité waa ñuulaange ak xees pecc ci panneau publicité yi di xeex rajo yi di wax ki naan dama xees pecc ki naan ñuul ba kukk waaw ah ndeysaan yàlla na yàlla def ay jullit borom bi dafa fekk jigéen ñu koy toroxal am na dëkk yoo xam ne lu mel ni Inde dañ doon jël jigéen bënn fii ba ñaari dun yi bënn ñu faj ko ba mu wér ñu jël kànnaar dugal tëj ne bu waxee rek mu dëkk pénc mi tas doo wax bu mu wax am na ci koo xam ne ne jigéen jaanu ñàngoor moo ko gën jigéen musiba la ku delluwaat culture grec yi delluwaat ci dund allemand yi dem Chine di ngeen gis ne jigéen tekkiwul woon dara yàllaay ki wàcc alxuraan ci mbirum jigéen lu njëkk mooy mu tuddee ko saar suratu nisa jigéen sax am problème di wax ak yeneen yàlla intervenir kaw asamaan suratul mujadala qad sami allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau taxawrakuma yàlla nekk malaul aala dégg jigéen di ñëw ci yonent di jàmbat ay problème am yonent sama borom kër daf maa yemaleeg ndeyam sama borom kër daf ma yemaleeg ndeyam jigéen boo ko nee yemale naa la ak sama ndey mooy pare nga ci moom def nga ko zihaar ci jamono yooyu waaye day sama jëkkër ci sama biir bi yépp ci moom la tuuru sama ndaw yépp moom laa ko jox sama kattan yëpp lekk na ko mënatuma dara dund naa ak moom ba yegg fi màgget mu ne ma yemale naa la ak sama ndey alxuraan moo wàcc mbokk yi di régler loolu yemul foofu moom sunu borom subhanahu wa taala waaye dafa fekk jigéen ñu koy jël rek di yóbbu ci kër gi di nekk ak moom yàlla mu ne ku soxlaati jigéen na ko takk na ko jox can na ko jox can can boo xam ne mooy wane ne takk nga ko au lieu que nga ñëw rek donn ko waaye léegi dañ koy jox can dañ koy jox can can googu moom moo ko moom moom ndaw si moo tax kuy takk jabar foog nga joxe can ci benn tënk bu gàtt ci pour ngeen xam yàlla subhanahu wa taala fi mu jële jigéen fekk la ñu lay donn mu ne bu la kenn donneti ñu lay takk forcé mu ne amatul ñu lay suul mu ne bu la kenn reyati bal sax yow doo doon daawoo donn mais léegi mu ne da ngay donn sunu borom subhanahu wa taala bi gën a rëy bi mu defal jigéen ñi mu ne jigéen bu jullee julli yu juróom bu wooree weeru koor bu déggalee déggalee jëkkëram topp ko ci lu neex yàlla mu ne dina dugg aljanna loolu góor amu ko waaye ci misaal comme jigéen a ngi noonu ci tënk ngeen gis ñetti tooñaa ngay ak yàlla ni mu libéré jigéen bal sax yàlla di tere ku jàkkaarloo jigéen rek di ko xool yàlla tere yàlla tax tere ku ko laal jigéen buy wax yàlla contrôler la langage am jigéen di solu yàlla mooy téyeel bi moo ko ñawal yére muy dox yàlla mu ne ko xoolal ni ngay doxee mais yàlla mooy yonent bi saa sallam borom xam-xam yi dañ naan ñaari mbir lu yonent bi di màgg-màgg yàlla tegu ko ci loxoom ñaari mbir mooy miraas ak jigéen miraas yàlla moo ko defal boppam jigéen yàlla moo ba mu juddoo ba garab muy dem bàmmeel lépp yàlla même buy dem bàmmeel sax ñu koy suul yi da ngay gis tey Sénégal ci ñàkk jàng nit day génn àdduna rek jigéen ñu koy yóbbu rek nga gis gars yi ne karañ kees ah déedéet kees gi dafa am ñu ko war a laal ndaw si fi ñu koy sangee ba koy jullee ba koy jël ci kees di ko teg ci oto ba ba ñu yegg armeel yi ba ba ñu koy dugal ci pax bi dafa am ñu ko war a laal kees gi laa wax de bi mu nekkee niiw laa wax nekk ci kees gi dafa am ñu ko war a laal fii ñëppay laal dèjà sax nga gis koo xam ne ci biir pax bi day dugg ne jox leen ma sëñ bi loo bokk ak moom sama dëkkandoo la woon loolu du loolu du diine de sama sama xarit la woon mukk ndey baay doom bu góor nijaay ah mbokk direct ñoo war a laal ñi ko mënul takk ñoo ko war a laal gis ngeen fiiraange yàlla pour rek ni mu yàlla fonke jigéen moo tax jigéen ñi bu ñu xamoon seen bopp kon àddina bi du egg fii mais mal asaf dañ leen nax génne leen kër yi futti leen sole leen yu bon ah boo xoolee télé bi tey daanaka doo mun a seetaan télé ndax image yu bon xoolal jigéen ñi niñ leen futtee xoolal jigéen ñi ci cirque yi leen dugal milliers yu ñuy def yu bon yëpp jigéen ñi ñoo fa ëpp parce que jigéen ñi xamuñu seen bopp ak ñoo waroon xam seen bopp parce que jigéen moom mooy société da ngay dégg ñu ne la al ummu madrasa yaay mooy école waaw léegi bu yaay baaxul nag ndax école boobu ku fa génn foo jëm olof yi dañoo lépp ne kéwél du tëb jëm ciy bët moo tax sunu borom subhanahu wa taala bëgg ñu defar jigéen depuis pour société bi mun a baax ñi jàngale dañ naan benn jigéen bu am sida ci quartier su ko neexee quartier bi góor ñëpp am sida waaye benn góor bu am sida mënu koo tas sida saa yi développé jigéen moo participé mooy njaaloo rek loolu tax yàlla bi muy wax njaaloo jigéen la jiital azaniyatu la wax bi muy wax sàcc mu ne assaariqu góor la jiital parce que njaaloo jigéen moo koy provoqué li garaaw tey da nga dégg xale bu jigéen bi na non kii dinaa ko kepp dinaa ko gasal kàmb laa la wax yooyu la ñuy wax de subhanallah ah looy tiitaroo mooy lu bon ndeysaan dafa am benn jigéen boo xam ne du woon jullit mu ngi tudd hind hind bi mu nekkee ci ceddu gi tuubagul mu dégg alxuraan wàcc yàlla naan yonent bi isa jaaka al muminat yubayi'naka ala an la tushrikna billah di lim aaya ba mu ne wala yaznuun bi mu déggee aaya bi mu ne ataznil xur gor day njaalo gor day njaalo dama dégg yàllaay muhammad naan jigéen ñi bu ñëwee ci muhammad di jaayanteeg moom na li njëkk mooy bu ñu bokkaale bu ñu njaaloo man de dama tiit ndeke gor dina njaaloo bu hind jamono yooyu hindi yéeféer la su hindi ñëwaatoon tey Sénégal fekk jigéen ñi naan moo sëru Lagos la di walis boobu fekk ko ci du fi mbañ di loolu la ñuy tiitaroo léegi ne sëru Lagos la walis boo ubbi fekk ko ci loolu musiba la mbokk yi loolu du loolu du baaxal société yàlla dafa bëgg jigéen baax jërëjëf yàlla dafa bëgg jigéen fegu yàlla dafa bëgg jigéen teey yàlla dafa bëgg jigéen dal borom xam-xam yi nee nañ yàlla bi mu bindee aadama ci suuf si la tibb bind ko bàyyi ko ba muy nelaw ajjuma ci ngoon ci bisu ajjuma ci biir aljanna yàlla xar faaru aadama càmmoñ bi gauche bi daal di génne xawaa muy jigéen mu toog bi mu yee bi mu yeewoo mu gis awa mu ne yàlla kii nag mu ne ko sa soxna la borom xam-xam yi ñu ne lan moo tax yàlla bind jigéen ci faar bind ko ci bopp bind ko ci tànk lu tax parce que bu ko tegee bu ko bindee ci bopp jigéen day nekk supérieur góor di fecc ci kaw boppam su ko bindee ci tànk kon góor day nekk jaam jigéen góor di ko nappaaje lu tax ci wet pour mu nekk xaritam mu nekk sa wet da ngay de kaay sama wet ñuul sama wet koo bëgg day nekk sa wet moo tax yàlla def jigéen pour mu war a nekk ci wetu góor pour kër gi mën a neex waa kër goo xamante ne nag ñoom ñaar duñu dend kéeng ci kaw kéeng ci suuf bu guddee kéeng ci kaw kéeng ci suuf wala kéeng ci biir kéeng ci saal bi kër googu du dem yàlla dafa bëgg jigéen nekk ci wetu góor nekk yaayam jigéen su baaxee day mat góor juróom day nekk yaayam nekk xaritam nekk jabaram nekk rakam nekk maamam jigéen su baaxee ci kër yii da koy mot borom këram dafa am waxtu woo xam ne jabar ngay nekk am waxtu woo xam ne yaay ngay nekk am waxtu woo xam ne sœur ngay nekk noonu la jigéen war a mel waaye jigéen joo xam ne ci kër gaynde nga gaynde kër googu du dem xale yi duñ dem bëri na yu ñuy jooy ci mbedd mi mbokk yi ci sunu biir kër yi la ko xale yi jëlee ah dafa am benn Égypte benn xale bu màgg sonal société ba sonal quartier ba ba police jàpp ko ñu ne ko yow yow dañ lay condamné à mort parce que da nga da nga sonal nit ñi ci quartier bi rey nit sàcc agressé rek dañ lay yow dañ lay tëj ba nga dee mu ne man fu ñu ma tëjee ba ma dee war nañoo dagg sama làmmiñu yaay juge bi ne ko mais mais sa yaay sa yaay agressé wul sa yaay reyul sa yaay sàccul mu ne non man bi ma amee sept ans sàcc bi ma njëkk a def sama yaay dafa sara xolle ne léegi xale bu góor la mu ne sama yaay moo ma encouragé juge bi ne ko loo sàccoon mu ne nen damaa dem suñu kër dëkkandoo fow yi ma fekk ginaar gi dëpp di di bóos mu yëkkati ginaar gi sàcc benn nen bokk sama bokkataan mu ñëw sunu kër ne yaay sàcc naa nen sama yaay daal di saraxole ne sama xal sama doom ji màgg na jàmbaar la ma defa ne baax na ma continue ci kon yaay yi nañ def attention yaay dafa war a baax su yaay baaxee rek cosaan bi lépp day dem olof yi nee nañ génnu pee day ri tax waaw yaay yaay dafa war a baax ku nekk war nga bëgg mébét sa doom ne ah est-ce que sama yaay Omar Ibnul Xataab dafa toog ci pénc mi benn xale bu góor ñëw benn góor borom kër ñoo ne ko sama doom laay clamé si ne ko loo jot ak sa doom mu ne dafa am alal te dimbali wuma daa am alal ju bari waaye dimbali wuma Omar ne dem leen ngeen wooyu doom ci ñu dem indi doom ji mu ne ko xam nga góor gi toog mu ne xam naa ko kay salal la mu ne sama papa la waaw yow lu tax nga am alal dimbaliwuloo ko mu ne sama papa daf maa yoreel àq defu ko moo tax man tamit àq yi ma ko yoreel du ma ko def Omar ne ko sa papa yan àq la la yoreel mu ne sama papa daf ma waroon tànnal yaay bu baax sama papa daf ma waroon tuddee tur bu rafet bi ma juddoo sama papa daf ma waroon jàngal ñett yi def ci benn mu ne Omar sama papa dafa for sama yaay ci mbedd mi am ak moom man mii la ana sa yaay mu ne xaw ma ko dégg naa daal mooy jigéen jooju taxawaalu ci mbedd mi Omar ne ko ban tur la la tuddee mu ne ko joxlaan xam ngeen luy joxlaan mooy gunóor yooyu di bëri dem àll bay ci àll bi lan mooy joxlaan mbërëngaan la ma tuddee mu ne diine nag maa ngi xaw ma ci dara Omar ne góor gi jógal yaa jëmbat kaani jógal ngeen dem ku jëmbat garabu kaani ba mu màgg nag foog nga witt lekk maanaam dafa am yi ñuy jooy tey ci kër yi jigéen ñi ñoo ko jëmbat ci biir kër yi moo tax foog mu doy waar kon jigéen ñi war a xoolaat seen bopp seen taxawaay ci mbaax ma jox leen ñetti jigéen jigéen ji dafa am jëkkër jigéen ji amul jëkkër jigéen ji jëkkëram bandi la benn jigéen bi nga xam ne amul jëkkër te mu ngi aljanna mooy Maryam jigéen ji nga xam ne am na jëkkër jëkkëram saay saay la waaye mu ngi aljanna mooy Asiya jabaru Firawna kan moo gën a gën a bon Firawna ci àdduna Firawna est-ce que am na turando seen cité bi am na ko tudd Firawna en chef de quartier imam beneen délégué ñu laaj ko.
beneen délégué bi sa koñ am na ko fa tudd Firawna amul mbonam moo tax mbonam a tax xam nga mbonam egg na mu ne ana rabbukumul aala maa yàlla bu mag bi dajale Égypte ba ñëpp teew mu ne leen maa alimtu lakum min ilahin xayri xamaluma leen benn yàlla bu dul man ku ma dégg fi nga ni yàlla am na dama lay rey jabaram ne ko yàlla am na li ngay bañ a dégg yàlla am na mu ne yeew leen ko ci ci pénc mi ñu yeew ko ci naaj bu tàng bi loxo ndeyjoor fële t- loxo càmmoñ fële tànk fële tànk fële ñu yeew ndaw ñi ci ndaw si ci digg dëkk bi ci naaj bu tàng bi mu ne dem leen ngeen xool xeer fu mu gën a rëyee ngeen wax ma fu mu nekk ñu dem wër ba gis xeer bu rëy ñu wax ko mu ne dem leen ngeen teg ko ci ay sariyo ngeen indi ko ñu indi mu wàcce xeer bi mu ne ndaw si loo wax yàlla am na wala maa yàlla ndaw si na ko yàlla Muusa ak Haaruna ñooy yàlla yoo doo dara mu ne teg leen xeer bi ci kaw noonu la mbugalee ndaw si ndaw si dee mais ndaw si mi ngi aljanna ndaw si bi muy bi muy wàcce xeer bi yàllaa ngi woon ndaw si fi muy dëkk ci aljanna firdaws mu naan rabbi ibni lii indaka baytan fil janna wa najjini min firawna wa amali wa najjini min alqawmi alzalimin di xeer bi wàcc ruubaa ngi génn firaaw na dafa ne mu ngi koy mbugal fekk yàpp kese la fa fekk loolu moo tax ñi gëmul yàlla chaque instant bu ñuy def lu bon ci ku gëm yàlla dañu yaakaar ne mu ngi koy yëg lii asma waxoon abdullah ibnu zubayr doomam muy xeex ak xajjaaj buur bu kàccoore bu saay-saay bu bon da daan gàddu butéelu sàngara ba ci jàkk ji guux ba doyal daal di teg daal ne li xaam leen ku génn jàkk ji mu rey ko muy xeex ak abdullah ibnu zubayr abdullah ibnu zubayr xam ngeen mooy kan mooy sëtu abu bakrin saddiq yaayam abu bakar moo ko jur muy asma kooku du ko ndaw de mu ne yaay waa ji moo ma mën de daf may rey ndax armée bi mu àndal dañoo bëri yaay ji mu ne ko bu la reyee amul problème mu ne noo xam nga lan moo ma metti su ma reyee daf may jàpp fii di ma daggate te loolu yow boo ko xoolee daf lay gêner yaay ji ne ko doom xarum tabaski bu ñu ko reyee ba pare di ko fees dootul yëg métit bi demal bu dee yaa nekk ci dëgg gis nga yaay ji ni mu encouragé doom ji lu mu ko wax xaru tabaski bu ñu koy rey di ko daggati ndax dina ko yëg yëgatu ko demal mu dem jàpp ko rey ko pour mu métital yaay ji mu wépp ko ci kaaba gi ne dem leen ngeen wooy yaay ji ñu dem jëli asma mu ñëw xool doomam ñu ngi ko wékk mu ngi dee deret jaa ngi sottee ko mu ne ko xoolal sa doom rey naa ko de loo ci wax kontaan nga walla mu ne ko yàq nga addunaam dina yàq sa àllaaxira mu xool ko ne ko ah kii moom ñeemu mu ko rey ndax kii moom moo doon toggal yonent bi lekk keroog ba yonent bi duggee ci xuntuma ba yonent bi tuddee ko zaatu ni tàqee ni kii moom ñeemu ma ko rey bàyyi leen ko mu ñibbi jigéen dafa war a baax bu leen yaakaar ne li ngeen gis ci mbedd mi mooy jigéen ñu baax ñi waaw déedéet ñu baax ñi ngi ci biir kër yi toog seen borom duñ tardé waxtu bu guddee bu nit ñi nelaw wax nañ seen borom kër am nga ci man aajo bu ne déedéet ñu jóg sangu rabiatal adda bi xam ngeen ko jigéen la daana julli junni ràkk ci guddi gi junni junni waaye am na góor ñu bari nag ñooy tere jigéen ñi julli ah am naa benn waaye boo xam ne ndaw borom këram jigéen joo xam dama ko doon jàngal jëkkër ji dafa tukki jëkkër ji ñëwaat rek gis ko muy julli guddi jëkkër ji ne ko mais xanaa da nga am problème yow mu ne problème bu lan mu ne mais dama la gis ngay julli rek da nga am problème ah lan la ah ma ne ko kon léegi ku am problème mooy julli mais da ngay julli guddi ndaw si ne ko non julli julli dafa war a mu ne ko eh teg ko ci suuf laa wax ah da ngay julli bu fi jullee si de koy suuf loolu musiba la waa mais jigéen ju baax di jaamu yàlla da nga koy encouragé waaye xam nga li am ci kër yi mooy paa bu dul yeewu fajar dem jàkk su jabaram di yeewu fajar day am problème am naa soxna soo xam ne dama ne sama jëkkër du julli mukk jamais mu yeewu fajar julli jamais jamais dimbali ma ci mu ma koy wax di ma ko wax di ma ko wax ba ma sonn ma ne ko jox ma numéro mu jox ma ko ma woo ko numéro privé asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam ma ne ko sëriñ bi mu ne waaw ma ne ko yow lu tax doo julli waaw kii la ma ne ko xanaa ku la bëgg a laayoo biir rek ragale yàlla yow yaa ngi am njaboot nekk burum kër tool nii nga toll sa soxna di yow fajar mu daal di coupé ah mbokk yi borom kër bu dul jóg fajar du nangu jabaram jóg fajar ndax day nekk kersa mi ngi mel ne xale yi dem jàkk am na benn kër goo xam ne xale yi dañuy dem jàkk seen papa du dem jàkk mu ne bundu kër gi dafa am heure an di indi ay loi wala ay loi parce que gis naa góor goo xam ne ndeysaan day dem jàkk fajar waa kër gi bugguñu paa bi dem jàkk fajar xam nga lu ñu def tëj kër gi nëbb caabi ji paa bi yeewu jàpp sangu génn li may wax parcelle la ah mu génn ne ubbi bundu kër gi fekk ñu tëj ko mu dugg ci biir néeg bi wër caabi ji gisu xam nga nu mu def mu yëg miir bi tëb daal di daanu tànk bi dem ñëw boobu daal mu génn après daal décédé nga xam leen wane nit ñi bëgguñu lu baax nit ñi aka ñoo sori yàlla nit ñi booy booy jaamu yàlla da ngay génne nit ñi loolu moo tax fi mu nekk nii ñuy encouragé xale yu ndaw yi muuru sax xale jigéen yi bëgg a dund diine dañu am problème yenn saa yi nga gis xale bu jigéen boo xam ne ci kar ci quartier bi dafa bëgg jaamu yàlla mais yaam dafa bëgg àdduna bu commencé muur nga rek yaa ne ko bu ma màgget loo bu ma màgget loo laa wax terme yi waaw looyu def nii ah benn xale bu jigéen bu jàngee limaamu laay gis naa xale bu jigéen boo xam ne mu ngi jànge limaam laay gi xëy rek ne damay bàyyi sol col gu bon damay jaamu yàlla daañu ne ko yow looy def ni yow ne yaay jigéen warul sol lu tàng warul sol lu xat jigéen dafa war a muur awraam yaay ñu ne ko bàyyil école ndax yow jàngeetoo jàngeetoo xale bi daal di bàyyi toog ci kër gi di togg ñu toog une semaine gisuñu ko xale yi ñëw di ko seet si ñëw fekk mu toog ci saal bi di tànn ceeb kii nag waa yow yow lan moo la dal yow lu tax jàng seetoo xanaa da nga feebar xool ni nga jeexee yaa yaa ngi toog yaa ngi nag kii de daa bëgg a bon ndax nee na day nekk ibaadu daa bëgg a bon kii de daa bëgg a bon ndax nee na dafa bëgg a nekk ibaadu waaw xam nga loolu léegi xale bi ëllëg si biir bu demee nekk leneen leneen dal ko yaa yi naan moo nangam fekk moom la ku bañ sa doom baax rek leneen mooy ñëw tànk bi moom dañ koy taala rek wala ñu bank ko wala ñu awi yooyu rek fi nekk tànk bi boo dee kenn ko taalal ñu ne la lem ko nga ne kenn du ko lem ñu ne nañ ko dagg ku fi bañ sa doom baax jaamu yàlla day dugg ci leneen kon moo tax jigéen dafa war a baax jël leen saara wala ngeen jël xaajara tey nit ñaa ngi dem màkk yonent yàlla ibrahima ñaari soxna la amoon haajara ak saarata haajara moo dëkkoon màkk saara dëkk masjidul aqsa jérusalem waaye xoolal bu mu jëlee jabar ju ndaw ji ak doomam liir bu tooy xepp traversé désert bi ñëw ba ci xuru màkk yàlla moo doon nettali fi mu teg ndaw si fii waadin gayra zi zarin inda baytikal muharram yàlla ne ko ibrahima lu tax nga yóbbu fii ñi mu ne rabbana li yuqimu sala yàlla dama la fi indi pour ñu jaamu la waaye ndaw si bi ko ibrahima indee teg ut benn ñeenti bant mbaaral ko ñeenti bant mbaaral ko teg ay garabu tàndarma ci kaw ne ko maa ngi ñibbi de xoolal màkk septième siècle màkk jamono boobu ibrahima loolu sax du septième siècle di ndax septième siècle mooy jamono yonent yàlla muhammad màkk jamono ibrahima banaa nelaw ak ñii dem màkk heure bi ñu xool màkk ni mu meloon démb bi mu jàppee ci mbuum mi mu ne ko looy def nii fii nga mën a bàyyi mu ne waaw lu tax nga ma fi bàyyi lan moo tax nga ma fi bàyyi yii nii dañ comme kenn toogu ci nañ leen ko jox rek benn yoon yii jël leen yi
borom kër yi ñëwul.
waaw jël leen yi ngeen jox leen borom kër yi jigéen
bu leen laal xaar la ñuy di saisi.
jël leen yi ngeen tegaleen ko noonu ñu toog mbokk yi ndaw si du ko jëkkëram tegee ci xur woo won ko ginnaaw mu jàpp ci mbum mi jëkkër ji gees mu ne ko looy def nii fii nga ma nar a bàyyi mu ne ko waaw kan moo la ko sant mu ne ko sama borom mu ne ko kon demal sa borom duma seetaan xoolal ndaw soosu ci xéewal yi ko fekk si bi mu nangoo toog ci dëkk ba moom dong nga xam ne amul sax ndox bu mu naan li ko Ibrahima bàyyee woon benn mbuusu ndox la bi mbuusu ndox bi jeexee mook doomam amatuñu lu ñu naan moom ngeen dégg muy daw diggante Safa ak Marwa te xoolal daw yooyu mu dawoon lan la jural jigéen ñi tey jigéen ñi bu ñu demee màkk duñ daw Safa ak Marwa waaye dañuy dox góor ñee daw parce que moom Saar Haajara dawaloon na leen ba pare wala ñoom dañuy dox rek di waaxu góor ñi ñooy daw diggante poto yu vert yi voilà waaye xoolal waxuma la xéewal yi nekk mag waxuma la kaaba gi waxuma la waaye xoolal ngëneel gi sax ndox mi gën ci ndox yi ci xéewal googu la génnee lu tax ndax jigéen ji nangu woon baax ngir yàlla kon nanu bàyyi xel ne dañuy sëy ci kër yi waaye dañuy jaamu yàlla gars yi nee nañu El Hadji Omar Foutiou li ma doon wax sànq ci tooñ gi ñu tooñ jigéen ñi dañ leen di royloo ay Aline Sitoé Diatta di leen royloo ay talaatay ndeer jigéen ñooñu jigéen ñi ceddo yooyu ñu bàyyi nit ñu baax ñi jigéen ñu baax ñi nga xam ne fii dañ fay jur ay doom yu baax ñu mel ne ay ñoom maam Fawade Wele ñoom maam Jaara Buso ah ñoom Adama Aïssi nee nañ El Hadji Omar yaayam dafa am doom mook papa yi ñu nekk ci àll bi di julli papa jaa ngi ci kanam yaay ji teg liir bi ci digg bi nekk ci ginnaaw benn till ñëw rek jël liir bi dem bi ñu jullee ba pare ñu sëlmal góor gi geestu mu ne ndaw si ana sa doom mu ne ko ah fii de laa ko tegoon mu ne ko kon de till bi yóbbu na ko yow mu ne woon sëlmal nga nga nga nga jàpp doom ji mu ne ko yow mi yaa waroon sëlmal mu ne ko nan laay sëlmalee man maa ngi julli di jaamu sama borom mu ne ko yow yaa waroon sëlmal parce que yow kenn ngay topp man ñaar laay topp mu ne ko ñan ñaar mu ne ko dama lay topp yow di topp yàlla yow yàlla dong ngay topp ah bu leen dégg tubaab bi li leen di wax kër yi yàlla dafaa def góor yi nekk kilifa ar rijaalu qawaamuun aaya la ar rijaalu qawaamuun ala nisa yàlla nee na kër yi góor ñi ñoo koy jiite même góor gi bu santee saar sax wala mu sant caam wala mu sant sow moom dafa yàlla teg moo koy jiite bu kenn xool ni mu mel waaye yàlla moo ko fi def gis ngeen bu ñu duggoon léegi oto oto bi foog am ko ko jiite bu ñu duggee bato foog mu am capitaine bu ñu duggee avion kazalik lu ñu mun a def il faut am ko jiite quartier bi est-ce que amul ko jiite kon kër gi il faut am ko jiite waaye buñ nee lépp a tolloo lépp a yem loolu mënul nekk kon jigéen nga xam ne tàllal leen basang yi
jigéen ñi na xam ne mbokk yi ñun ñëpp ñu jàpp ne ku nekk sa biir kër yow liggéey bu rëy la la yàlla sant ci lan ci nga tabax sa kër gis nga kër yi bu ñu ko tabaxee ba mu baax ku nekk bu tabaxee sa kër bu ñu génnee rek pénc mi dafay baax li ngeen di gis tey ni ay problème ci biir mbedd mi fan la jóge ci biir kër yi parce que kër yi ñoo deful seen liggéey te kër yi ñan ñoo fa nekk mooy góor ak jigéen waaye yàlla dafa sant ñoom ñaar ku góor ki génnal outil ku jigéen ki defaral kër gi su ndaw si xamee li muy def ci biir kër gi rek jafe-jafe day jeex fexeel ba kër gi nekk dellu si kaay xale yi bu ñu génnee bu ñu amee problème bu ñu ñëwee nga réglé ko ku góor ki bu amee problème bu ñëwee nga réglé ko waaye nag loolu bala muy mën a nekk day fekk yow nga réglé ndax faaqidu shay laa yuti dafa am benn xale bu jigéen day jàngal doom ji saa yu doom ji wàccee mu ne ko demal nga jàpp nga julli nga ñaan yàlla nga ñëw añ saa yu xale bi wàccee jardin demal nga jàpp nga julli nga ñaan yàlla nga añ benn bis xale bi wàcc fekk yaa ji génn mu ne ah sama yaay dama doon wax sama wàccee naa julli ñaan añ mu dem jàpp julli ba pare sëlmal toog ñaan dugg ñoo fekk añ kan moo ko indil añ yaa ji daw ñëw gaare oto ñëw gis ko muy añ yaa ji mu ne ko foo jëlee añ mu ne yaa ma ne jàppal julli ñaan añ jàpp naa julli naa ñaan naa maa ngi añ kaay la ñëpp jaaxle kii koy indil añ yàlla moo koy indil añ parce que axiida la axiida la nit waaw pas-pas la nit dafa war a jàngal doomam lu baax su ko xale bi tàmmee lu baax fu mu dem day baax waaye bul ko jàngal li xew léegi ci jamono nga xam ne xale bu ndaw bi bi muy nàmp lañ koy tàmmal waxal duul mu naan doo ñu naan dégg la muy wax mu naan duu duu mu ngi naan duu di wax na ma duul di donc musiba la yal nañu yàlla dimbali xale bu ndaw saaga ko dafal lii moo tax musiba am na xale kenn du ko tàmmal yooyu yonent da ne xale bu commencé di wax nañ ko wax nañ ko jàngal muy wax laa ilaha illa allah muy baat bu muy fawee xale baa ngi tàmm wax nañ ko wax loolu mu tàmm wax laa ilaha illa allah mbokk julit yi ñaareel bi mooy ci biir kër yi ci ndaw si pour nga baax foog nga jàng ku bëgg a yar te jàngoo du dem yow da nga bëgg a yar kër gi da nga bëgg a defar xale yi da nga bëgg a defar kër gi da nga bëgg a defar sa borom kër mais foog nga jàng imaginel ndaw soo xam ne mënul jàpp gis naa ndaw soo xam ne dafa dem màgg ba ñëwaat ñu koy jàngal nu muy jàppee du kenn na maa doon sotti ndox ci loxo yi di ko de raxasal lii mu ne ma des na de sangu janaaba ma ne ko moom moom dama sa borom kër munu ko mu ne ma munu ko ah ma màgg ba ñëw kon loolu moo la xam ne sunu sunu sunu yii ñuy def nii ci biti te li garaaw mooy di wane wu ci biti te yow xam nga ne fii dafa bidd dara nekk fi kàbbar julli ah yàlla xam nga ma xam naa la de xam nga ma xam naa la daal di rukkoo yàlla xam nga ma xam naa la si yooyu yooyu wóorul dama nga jàngi
ah bon waaw wala ñuy def billaahi wala ñuy def yàlla xam nga li sama xol bi de xam nga ne bëgg naa la yaay sama xarit yooyu yooyu amul de demal nga jàngi alxuraan julli kenn du ci wax yooyu waaw yooyu baaxul mbokk yi dem leen ngeen jàngi dem leen ci daara ji ngeen jàng su ngeen jàngee ngeen xam seeni farata boroom xam-xam bi njëkk a bind laxdar dafa ne awalu ma yajibu alal mukallaf mu ne tasihu imaanihi summa maarifatu ma yuslihu bihi farda aynihi kaakaami salaati wa siyaami wa tahaara mu ne li njëkk a war ab jullit góor la wala jigéen mooy pas-pasam na wér ci yàlla yàlla mi muy gëm da xam yàlla moom mooy kan bu mu làmbatu nga moom yàlla bu mu ko làmbatu moo tax jigéen ju la gën a gëm yàlla moo la raw billaahi wallaahi foofu la ku la gën a gëm yàlla moo la raw bu leen bu leen sikki sàkka raw nekkul ay gaare kat-kat génn langal musóor fii yëngal clé oyu ma portable uy kii non du yooyu raw ma nga ca yàlla inna akramakum indallah atqaakum ku lay jaay fii ay kii jaay ko ci sijaada bi damel nga xaar ko ci sijaada bi waaw fexeel sa digganteeg sa borom na set dafa am lu ñuy waaj suñu digganteeg suñu borom fexeel nga sell sa digganteeg sa borom am na ñoo xam ne dañuy génn rek woo seen yaay yaay dama am problème de yaay mu ne xaaral ma ñëw dem jàpp sujjóot ñaan yàlla pare woo la alors nga ne yaay réglé na ma ne macha allah boo amee problème rek woo ma waaw parce que yaay ji la ak yàlla pas-pas bi la ah waaye yaay am naa problème de wóol diw ana sa papa woo nga ko loolu du dem de kon nañu fexe nga jàng soo jàngee nga xam sa diine soo xamee sa diine kenn dootu la naxati xamal ni ngay jàng looy jullee xamal ni ngay laabe xoolal jigéen ji nga xam ne dem na ba gis deret xamul nu muy setee moo tax jigéen yi duñu wax ak sax seen doom yi da ngay dem ci école yi nga gis xale bu jigéen boo xam day xëy rek ñu abal ko ay sër mu waddu mu ñibbisi lan la la ma toogoon la samay sër yàqu loolu yëpp manque de communication la ak say doom ah ndeysaan jigéen ñi dañu war di wax ak seen waa kër yi seen doom yi ci biir kër yi di leen jàngal di leen yar noonu la jigéen ju baax di def yar sa jëkkër yar say doom góor jigéen day yar góor am na góor goo xam ne benn doom la ko yàlla may ak jaw jëkkëram benn doom mu xëy rek jigéen ji jabar ji doom ji daal di faatu bu doon tey sunu yenn jigéen ñi la da koy woore diw diw dee na de waa ji bu waroon dugg Sama àdduna tukki.
waaw bu waroon dugg kaar ñëw fii day daawale kaar yi jël kaar bi jëm tëngëj dem ba yegg ne waaw man ban kaar laa jël nii fekk dafa jaxasoo ndax niñ ko ko waxee waaye xoolal ndaw soosu dafa bàyyi ndaw si waa ji ba mu wàcc daw rek bëgg a songu xale bi mu ne ko bul ko laal day nelaw xam nga ne kii gëj naa nelaw gisoo ruy boobu ma def ci wetam léegi la doon lekk dafa pare di nelaw dem yóbbul waa ji ndox mu sangu ba pare mu tegal ko añ mu añ ba pare mu toog ci wetam di ko ataayal ne ko nag nañu waxtaan man de tey dafa am problème bu am ci quartier bi mu ne quartier ban mu ne fii ban problème mu ne diggante diw ak diw wax ko ñaari tur lan moo leen boole mu ne diw de moo abaloon diw benn bagage di ko jël si diw ne du ko jox bagage yi mu ne ah loolu nu mu mun nekke ñu abal ko benn bagage ki soxla bagage yi ñëw di jël si bagage am moom miñ ko abaloon mu ne du ko delloo xanaa moom dafa dof képp ku ñu abal war ngaa delloo mu ne ko ah ko wax loolu mu ne ko man mu ne loolu moo ci sa àtte mu ne waaw mu ne doom ji de yàlla ñu ko abaloon jël si na ko kooku lu muy wax ndax day yuuxu maanaam delloo si na ko ba pare dootul mën a yuuxu moo tax ñu war a ñu war a communiquer dafa am benn buur bu gént guddi ay bëñam deñ mu tiit mu yeewu wax ko gaa yi gaa yi ne ko xaaral ñu wër ñu firi gént ñu indi ñeenti nit ku njëkk ki ñu ne ko looy wax ci gént gi mu ne ak a metti Hmm, gént gi neexut de buur bi ne ko waaye ala kulli haal di nga wax lan la moom waxal mu ne ko sa doom yëpp ay dee mu ne mais yow eh kii tëj leen ko yow man ngay merloo tëjal leen ma kii ñu jàpp waa ji tëj mu ne keneen ki kooku ne ko ah li waa ji wax la de sa doom yëpp ay dee mu ne yóbbu leen kii tamit ñu ne ñetteel bi mu ne ko gént gi dafa neex dara nekku ci waaw ñu dañuy wax rek mu ne waay waay kaay waay toogal nii waay yaay so- ah. loo wax ci gént gi mu ne ko yaay gën a gudd fan sa waa kër déggu leen li ma wax de ah déggu leen li ma wax benn la ah waaye waaye xam nga lan la waxin wi waxin wi la kon kër yi sax waxin yi dafay tas kër yi yenn saa yi il faut ñu defar waxin yi il faut ñu seet communication ni ñuy communiquer xam nga kee ki ko ne sa doom yëpp ay dee sa kanam ak ki ko ne yaay gën a gudd fan say doom mais benn la yaay gën a gudd fan lu muy tekki yaa leen di mujj ginnaaw pour ñëppay dee waaye communication bi la nit ñi war a defar gis nga xoolal baat boobu dañ ko diggante boobu dañ ko tëj sunuy sunuy doom doo gis mu benn papa wala benn yaay wala xale bu jigéen bu ñëw ci yaayam ne yaay dama la soxla tey toog mu ne yaay nangam ak nangam wala yaay ju toog ne eh kaay yow yow war nañoo wax man ak yow non dañu ko da ngay bàyyi xale bi rek muy tëlëx tëlëxi rek bu dee papa ji day bàyyi xale bu góor bi muy tëlëx tëlëxi ba dugg ci kàmb xam nga ñoom lan mooy communiqué na eh jóg leen julli rek añ ngeen mbaa reer nañ ana xale yi tëdd nañ loolu de mooy communication non dafa war a am xawaaninul bayit maa ngi ko doon woon kii barki dem mu ne ma photocopie ma ko dafa war a am loi boo xam ne mooy loi bu nekk ci kër gi xawaaninul bayit loi de la maison dañ ko yuñ koy affiché taf ko ci kër gi ñëpp xam ne loi bi lii la ci kër gi jigéen gi xam ko jëkkër ji xam ko doom yi xam ko benn ñaareel bi mooy dafa war a am waxtaanu semaine ci biir kër semaine bu nekk dañuy waxtaan bala ñuy tëdd papa ji na ñëw toog xale yu góor yi na ñëw toog ku jigéen ki toog yaay ji toog bismillah ñu waxtaan xool kër gi xool jàng bi ah dugg ci kay devoir yi xool lépp ah mais tey sunu communication ak sunu waa kër yi sunu doom yi dañuy am problème c'est parce que jigéen ñi ñoo deful seen rôle ji lu tax mooy jànguñu dafa am blocage xam nga booy contrôler yenn yi day fekk nga xam dara dafay nga xam fam benn jigéen ci sunu école ba jardin doom ji bu yeewoo fajar di dem ci toilette bu yeewee ñe bismillah allahumma inni a'udhu bika min alxubusi wal xabaa'is mu ne ko loolu lan la mu ne ko damay ñaan yàlla mu musal ma ci jinne yu góor yeeg jigéen yi seytaane yi ñu ngi ci biir duus bi ah léegi nag yaa ji daal di tiit comme moom munul ñaan bi tiit mu ne mu ne man ah waaw mu ne sama doom bi nee na jinne yi ñu ngi dëkk ci biir duus bi léegi man te man munuma ñaan bi moom mën na ko moom it bu ñëwee ba ci bunt bi rek mu ne xubus xubus xubus xubus mu ñëw ne ma ah moom kat danaan allahumma inni auzu bika moom am na lu muy wax ne xubus xubus man tamit xaw ma leneen li xubus xubus daa di ko du loolu de ma ni ko du loolu de du loolu de il faut nga jàng ñaan bi waaw dama nga jàngi ko mu ne ah man de mënuma ko waaye daal xam naa ne am na lu muy wax xubus xubus man tamit xubus xubus ma ni ko du sotti de du sotti kon yooyu yëpp jàng la su njàng mi jeexee mu des ibaadaat formation bi ci jaamu yàlla bi bul fàtte di naafila guddi bul fàtte di woor lundi bul fàtte di woor jeudi bul fàtte di woor ayaamul biid bul fàtte ngay def ay azkar boo jullee guddi ba pare nga toog def ay zikr astaghfirullah téeméer subhanallah wa bihamdi téeméer la ilaha illallah wahdahu la sharika la téeméer bul fàtte loolu salaatu ala nabi téeméer maa dafa am kër dafa am lu koy baaxal jigéen su baaxee di jaamu yàlla ci kër gi jàng xam diinim kër gi dafay baax yàlla day musal kër gi ci seytaan waaye kër goo xam ne kenn du fa julli kër goo xam ne dana yàlla fay leen kër goo xam ne xale boobu bi mu demee waajal timis bi julli fi mu sujjóot sujjóot bi yàgg ñoo di ko woon nekk faatu na mais dafa tàmmoon julli moo tax mu dee ci julli am na borom xam-xam bu tudd Cheikh Abdoul Hamid Kishk jour vendredi mooy jiite juma dafa sangu ba pare jàpp jëw julli ñaar rakk di waaja dem jumaa ji fi mu sujjóot julli jiwul jumaa keroog fi mu sujjóot foofu la faatu waa jumaa ji toog di ko xaar nekk moom faatu na fi mu sujjóot ci biir këram doom ji moo toog ba ci àgg rek ñëw xool sujjóot bi yàgg mu laal ko mu daanu moo jàkka ji ne leen imaam bi faatu na nit day tàmm lu baax su ko defee mbokk yi ñu xam ne jigéen yàlla subhanahu wa taala màggal gim ko màggal teral bim ko teral loolu moo tax mu defal ko léppam nekk sécurité ñu bari dañuy wax ne islam dañ nit ñi dañoo fiir déedéet jigéen la yàlla màggal jigéen la yàlla bëgg jigéen la yàlla fonk moo tax mu utal ko tata mu utal ko kiiraay bu mu am accès loolu nag mooy li tubaab yi xam ak noon yi mel ni ñoom benn baaxoñ bukki bi dafa gis baaxoñ bi ci kaw baaxoñ baa ngi yegg da ba baaxoñ baa ngi seex fromage bukki bi bu ko lekk fromage bi xamul lu mu koy def mu ne ko woyal ma bu ŋaangee lu muy def mu daal di ŋaang fromage bi wadd bukki bi jël fromage bi dem mu naa ko doxal mooy mu ne ko loolu intéressé wu ma jël bukki loolu la loolu la noonu yàlla yi bëgg dañuy wax ne golo bu jotul ci Dakar dafa naan dafa weex il faut ngeen xam fan la leen lislaam teg ngeen xam fan la leen yàlla subhanahu wa taala teg fan la leen yonente alayhi salaatu wasalaam fekk ak fa mu leen jële ak fi mu leen indi su jigéen ñi comprendre woon tey islaam jigéen ñi xam seen diine jàng ko càmbar ko kon wallaay jafe-jafe du am ci àdduna bi mbokk jullit yi maa ngi gàttal kàddu gi foofu ndax am na yeneen yu war a amaat ak ay conclusion ñoo ngi ak ay laaj ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ni mu ñu booleel ci place bii nii yàlla noonu yàlla booleel noonu ci aljanna firdaws góor ak jigéen mag ak ndaw fekkeen manquéwul asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu
waaleykum salaam wa rahmatullahi taala jar woon ñu koy présenté ndax olof de ni ku wax fee li mu fi joxe si ay bind bari na waaye bu ñu ko doon tënk mënoon nañ koo tënk si benn aaya boo demee sootul xasas mooy lëri si borom bi dafay wax wabtaghi fima aataaka allahu daaral axira wala tansa nasiibaka min ad-dunya waajalal si li la yàlla jox si wér gi yaram si alal si ak dal si ak dal si ak fekkee si ak dund si ak jot na nga si waajal këru alaaxira ndax mbir yi yëpp teeru dal arrivé bu mooy alaaxira ñu ngi sant yàlla bi ñu mayee dama ko waxoon ci départ bi ay soxna yoo xam ni seen yitte yëpp mooy bëgg yàlla fu ngeen toog yeneen koy bësal yeneen koy feeñal kon ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala moom mi ñu wërsëgal ñu fekk jataay bi liñ fi for mu néew mu bari yàlla nañ ko mën a jëfe yàlla nañ yàlla boole si nga xam ne bu ñu déggee wax dañuy seet la ci gën a rafet ñu koy jëfe ñu ngi sant waa cité bi yëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla autorité yëpp teew nañu ki mu jël ñëw léegi monsieur Daouda Ndiaye c'est le maire de Yeumbeul Nord mbokk yi ak lay gërëm di la dalal di la ñaanal yàlla yàlla yombal say mbir mu gën si yow gën sa njaboot gën sa diine la ma la waxoon ba ñuy dalal suñu délégué bi parfois muy ay kàddu yóbbante loolu lañ lay dalale waa tey suñu ñaari problème doomu la ñu am mooy égu ak bu nit bëggee ñëw du am psychose fan lay jaar ba àgg muy suñu réel yi ñaar yooyu buñ si yàlla jàppalee autorité bu bu si jàpp ñu ne ñëpp ñu ngi sa ginnaaw égu lañ soxla mu laa nox leen ñu dere bi taa suñu problème commune bi yëpp mooy égu ak accès accès si diggante loolu lañ lay jooyal